waaw sëñ Mamor euh, di dolli sant di xamal tam Sénégalais yëpp ni ñun dañu juddu rek nekk murit ndax euh, kii nga xamante ni moom lañ ma tuddee di sama maam jur sama baay moom ci boppam sëñ Touba lañ ko tuddee sëñ Touba yaral ko boppam kon nag. waxuma la man sax waaye sama maam sax dafa judd nekk murit ndax bàyyi moo ko tudde sëñ Tuubaa kon yow ku la woowee xaadim juumul déedéet mooy tur bi la rek Cheikh Ahmadou laa tudd maanaam foofu la tàmbalee man tam boo ma xàmmee rek nekk gone laa dénk sama bopp sëñ Saliou Mbacké euh, bi ma koy dénk tam sama bopp àllaaxira moo taxoon waaye yegg gu ñu fële sax mu daal di ma teral nii mu ma teral ci àdduna donc du loo xamante ni dama ko doon natt wala mu doon loo xam ne intérêt la damaa judd rek bëgg sëñ bi te xaw ma lu tax ma bëgg yàlla def tam mu tegoon ma foo xam ni ah euh, du ma ne teg na fa nit de waaye ñu fa teg néew na ndax lu ma dund la bi ma nekkee xale euh, ba ni ma màggee ba keroog muy wuy ji sunu borom kon nag euh, dolli sant rek lañuy def ndax loo xam ni yaakaaroo ko sa àdduna mu dab la te lépp gannaaw yàlla ak yonent bu baax bi lépp man sama àdduna dafa dajaloo nekk ci Serigne Touba Serigne Salim Mbacké daraam génn ko